asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu euh, mbokk yi ñëwoon naa tey ci seen ñeenteelu jour bi ma leen wax ne dama leen jox secret yuy neexal diggante yi moo xam diggante mag ak rakk diggante ñaar ñi sey diggante ñaar ñi ànd te bëgg sey sëy incha allah lépp rek pour bëgg jàmm am ci diggante yi ndaxte jàmm ci la lépp xaj jàmm fu mu amul rek tawfeex du fa am wërsëg du fa am jàmm maanaam dafa baax. kon nak moo tax ñuy son di leen jox li waye buñ paree ci lool itam da leen di dëggal ngeen def sa kër yi ci lu neex yalla té itam ma leen ni conseil ben affaire moy adina képp ku la wax ni moy fajj sa aajo té jittelu ci yalla rek dafa attention té yalla moy fajj aajo yépp ñun mënuñ dara lii ni xam-xam bi yalla jox la rek luñ xam la rek yeen ñi sama ngeen ko xam kon buñ koy siddo ayen di leen koy jox da leen waxtam xamane leen lepp luñu def itam Yalla mo si jitu ba pare kon ñu ngi ñaan yalla ci katanam ak baxam yaakar bi ngeen am bu tax ngeen abonné sama chaîne di ma sétan di jël limay joxe diko def yalla yalla yàlla faj seen bu fekke ne nit ki defu ci dara luy loraate wala lo xam ne conséquence bi mun naa négatif mun naa indi ay yaq yaq yalla na yàlla faj seen aajo yi ñëpp si zaar ak xam lepp lu ngeen fi jël ak ñi nga xamne ma leen defal tay wax deug na yalla chaque jour nit ma ma gëreuma lo rek dafa dafa dafa neex ci xol amna ño xamne sax gisuma leen musuma leen defal dara mais dañuy def dara fii woo ma ne ma yaa tax nangam nangam nangam kon ñu ngi sant yàlla waaw tey secret bi mu leen jox <clears throat> muy secret li ngeen xam muy wala xadd xamat bi wa xamat biha mu am solo lool tey mu indil leen ko si jën si boppu jën dëgg la nag secret bi am na beneen puissance bu gën a mag luñ ko mën a liggéeye mais dafa xaw a doy te fii euh, kon nekk fi ñëw di seetaan am na yoo xam ne da nga fi jox nit jël ko def ko doomi jàmbur mu gaaw jàpp jàpp boo xam ne mu jël kooku di ko caaxaane wala nit def ko jëkkëru jàmbur wala jabaru jàmbur te bari na fi bari na fi chaque jour ma jot message yooyu moo tax ñuy moytu ginnaaw bu ñu leen di dimbale itam dañuy moytu di di defaale bàkkaar parce que am na yoo xam ne foog nga bàyyi ko xel itam waaw mais nag képp ku si def daal lu baax rek yal na yàlla nangu ko balaa nga koy def sax na ko yàlla nangu kon da ngay jël kayit nga bind wala xëdd xamat bi xii wa xamat bi xaa mi mu xamat bi yow si ngay bind sa tur yow mi bëgg mii muhammad bi mooy bi ne si suuf fi ngay bëgg bind turu ki nga bëgg maanaam benn yoon rek si kayit bu ndaw maanaam yow sa tur na nekk si miim bu njëkk bi turu ki nga bëgg nekk si miim bu mujj bi wala bu fekkee ne euh, euh, maanaam borom kër moo koy def nga def ko famille yow mi nga xam ne yaa chef bi chef de famille bi wala taaw bi wala mu mënti doon nga def sa tur si kaw def turu mbooloo mi yëpp si suuf maanaam si beneen miim bi soo paree nga tëj miim yi après nga jël lem kayit bi bam mu baax nga doog ci bopp jën bi sul ko ci pegg géej pegg géej nga sul bu jën bi xasee bu nëb rek bopp jën bi bopp jën rek la nekk du nekk di jën entier su nëbee rek jeex na fini incha allah waaw bu nëbee rek jeex na bu nëb rek jeex na yàlla dana dogal diggante boobu macha allah waaw kon nag def leen ko ñi nga xamante si ni yàlla dogal ne ne wuñ yenn mbir yi pour mën koo def te ngeen am si man yaakaar rek ngeen am si man ñun munuñ daar ay jaam xeebu leen dara munuñ ko yalla rek mo mën mo waye na dañ koy jël lepp tegaat ko ci loxom ba buñu nit nit euh ndaysan si si suñu kaddu wala si suñu jëf biñ ko defalee rek ñu ngi ñaan yalla yalla nangul euh, vraiment euh, loolu ñuy def kon na yalla rek mo mo mën ñu ngi tegaat lepp ci loxom ba lepp lu ngeen fi def rek yalla yalla nanguko bu nekkul loo xam ne lu mooy yàlla la incha allah kon ñu ngi ñeem yem fii di leen jox di daje bu jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah